saa yi doxalal yow mét yow gis nga kii non c'est pas possible ñoo doon fubal ci mbalax maal ñoom booy animateur ñoom Mouhamed Mbaye Paulish <laughs> Omaro yow laa rek yow laa rek doo naan sa café da nga noppi daal ma <laughs> ñu taxaw di xaar booy yi di ñëw jox leen bal yi ñu mel ni ay star moo tax doon nañ leen six ans ah, pare ngeen pare ngeen pare ngeen voilà allez bisimilah. jaajëf jaajëf al non mais laaj baaxul. joué joué joué six la doon ah. waaw kii dama doon jël naa si sa temps mais c'est pas une raison pour faire ça. da nga koy tënk waaye tënkal. ci kàttanu yàlla comme ni ñu koy saa su ne tey nag yemboog altine juróomi fan ci weeru août. weer bi nag dama gul fenn. day doog a door day doog a door rek eh saa yi feyeeku nga doxalal. juróomi at ci weeru août ci atu ñaari junni fukk ak juróom ñeent. ñu pàcc pàccal ñu ci fukki siñ ak ñaar yi ñu dooree ko ci ci bélier yi ah bélier yi nag ñu koy dooree ci amour nee na tey di coppeeku du am ci wàllu wi sentimental bu dee da ngeen nekk ci couple wala ngeen nekk yéen kese bu leen bàyyi benn occasion boo xam ne dina taxaw ci seen kanam pour ngeen mën a résoudre problème yi nga xam ne amoon ngeen ko ci wàllu woowu waaye bu ñu xoolee it ngeen fekk nekk nit ñoo xam ne da ngeen jàpp seen bopp robot nee na bu ñëwee ba ci njeextal bi da ngeen di feebar journée tey bi nekk bés boo xam ne bu am solo lay doon pour seen activité professionnelle yi ngeen mun ci am ndam ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yi mu ne yéen da nekk ñi nga xam ne dëgg la naam da ngeen bëgg liberté trop waaye liberté trop ci biir sentimental baaxul parce que da ngay dem ci def loo xam ne après ëllëg ak si bi di nga ko mën a rëccu te doo xam noo koy defee ñuy gis ne santé énergie bu mag dina am ci yéen lool di leen jàppale ba lépp li nga xam ne yaa ngi ko bëgg wala mu nekk loo xam ne da ngeen koy dox dina mën a nekk luy sotti leen ko vigilant it sur le plan professionnel diggante yéen seen ak seen ba li nga xam ne da ngeen koy bëgg wala mu nekk loo xam ne xalaat ngeen ne boo leen si duggee mu sotti dangeen ngeen ci am ndam ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jumeaux yi mu ne bu dee dangeen ne couple de waxtaan yi am seen diggante yéen ak ki nga xam ne mooy woy bëggante bi ngeen di nekkal dana mën a nekk loo xam ne luy jàpp ni lay doon waaye nag ci biir loolu bu ñu xoolee tuuti yaa ngi xalaat gën a yaatal sa famille bu leen am benn jafe-jafe ci wàllu santé bi seen hygiène de vie nekk na loo xam ne luy baax waaye nag bu ñu xoolee tuuti am na ci yenn collègues yoo xam ne nee na de day am jalousie daal da leen di dugg li laa di wax ne raakaaju da koo dugg ci fajar bi nee na dina am yenn collègue yoo xam ne jalousie da leen ñuy dugg loolee di nekk li nga xam ne malheureusement malheureusement mun na indi ay réeroo wala ñagas-ñagas seen diggante ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi mu ne yéen da nekk ñi nga xam ne bu dee ay célibataire ngeen ah da ngeen jéem a xool d'habitude taxawaay bi nga xam ne da ngeen koy am pour mën a séduire facilement waaye tey du yomb mu ñu xoolee it wàllu wér-gu-yaram seen wér-gu-yaram day commencé di néew doole di affaiblir lu nànk-nànk loolu nekk na loo xam ne wóoyee na leen sonal xool leen nit motivation bu mag bi nga xam ne amoon ngeen ko sur le plan professionnel vitesse yi nga xam ne yaa ngi ko doon jàpp pour am li ngeen bëgg di ngeen ci am nga xam ne ñoom ñooy lion yi mu ne yéen da nekk ñi nga xam ne dina am benn phase de remise en question boo xam ne da ngeen ko am nit bu fekkee yaa ngi nekk ak moom tout le temps tout le temps laaj na benn jamono nga am benn taxaw seetlu xool fa nga nekkoon fa nga jëm fan la ak li nga jàll maanaam daal defaat benn organiser waa voilà def benn jano si xolaat mbir yi daal dina baax ceen baisse de vitalité nag nekk na loo xam daf si taxaw nga nekk nit ñoo xam ne tey trouble de sommeil doo leen nelaw baax na leen sonal journée tey bi nag nekk journée boo xam ne dina am ay changements yu am solo sur le plan professionnel mu leen ni jàppale ba ngeen mën a am ndam ñu jàll ci ñi xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne tendresse ak entente déggoo dana nekk loo xam ne day dox seen diggante difficulté bi ngeen amoon pour mën a communiquer ak ki ngeen bëgganteel kooku jeex na côté santé reposé wu leen di lekk di naan ah am vraiment repo euh, euh, sommeil réparateur dafay baax ci yenn bu fekkee yéen seen jëm bopp ci wàllu professionnel da ngeen am odas am gëm-gëm am dynamisme laaj na fi mu nekk nii boo leen si taxawee dem si dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon ñu dem ci signe mujj yi dooree ko ci balance yi waaw ah, laaj yoo ban signe nga balance voilà mu ne bu dee ay célibataire ngeen yéen da ngeen nekk nit ñi nga xam ne far boo leen amoon ay jamono ci gannaaw da ngeen di tasewaat ak moom. yaa nañ si yàlla la de xaw ma lu ciy am léegi mu ne loolu nekk na loo xam ne yéen seen jëmbab mun na amaat départ bu bees xam nga ñaar yaram yu tàmmante nii bu ñu laalante nii tàngoor daf si dox waaye dama lay expliquer rek dama lay won exemple laa lay joxe ok mu ne loolu dafay nekk li nga xam ne daf siy taxaw léegi nag ci biir loolu à un moment yow mii jikko jigéen ki mun ngaa dem ba benn ma waa nga changé xel waaw xëy na ñoom man de Samb du ma yàbb di si xaat non loolu yëpp ñun xam <laughs> nga xam ne da ngeen si nekk nii ni ngeen di lekkee ni ngeen di dundee seen dund bi nii baax na trop ci seen wër wër gi yaram sur le plan professionnel également nee na seen instinct maanaam seen sixième sens moo leen ni jàppale ba yenn mbir yi nga xam ne dañu ko dénk pour ngeen liggéey ko da ngeen ciy am li nga xam ne da ngeen siy bëgg mhm. ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi mu ne bu dee nekk ay solitaire maanaam nekk yéen kese di lamb gi day tar ci seen côté de loolu nekk na loo xam ne mënu leen ci lenn sur le plan professionnel kon bàyyi leen mu set def leen plaisir seen bopp dem leen fu am espace vert wala ngeen dem géej wala ngeen dem fenn foo xam ne daal day libérer seen esprit ci biir loolu it ñu gis ne yéen dangeen ngeen bëgg a jël seen charme bu ko imposer indi ko ci seen liggéeyukaay moytu leen promotion canapé ba de doo leen ko fekkee de loolu sànq am na leen lu ma ci waxoon. Hmm. Ah, ah, ah, waaw ah koo fàtte. ok ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi mu ne tey dafay nekk journée boo xam ne journée bu mucc ayib lay doon ci wàllu vie sentimentale waaye ñu gis ne it yéen seen jëm boobu day am benn attitude bu désirable boo xam ne dina baax lool ci relation yu am solo yoo xam ne dina taxaw seen diggante ngeen di démarrer journée bi tey nag ci benn ndékk bu am solo boo xam ne daal ay céréales ay fruits ay meew yooyu yëpp daf ci nekk loo da ngeen di am ya xeet yu yooyu noonu yëpp daal day baax ñu gis ne day am benn collaborateur boo xam ne sur le plan professionnel moom seytaane lay doon. Hmm, yàlla incha allah musal. kay ay seytaane yooyu moom. ñu jàll ci nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi mu ne ñoom dañu nekk ni nga xam ne dina am ay réeroo yuy dox sa diggante yow ak ki ngay bëgganteel ci biir loolu nag li gën mooy nga indi waxtaan boo si bëggee mucc. tey mu nekk journée boo xam ne day nekk une journée mouvementée ba dinga dem ba sa yaram du ko fekkee ngay gaañu ci ay bunt ak di weq ay miil ak yooyu yëpp tax na boo xam ne boo ñibbee da ngay dem rek sangu tëdd nelaw léegi ci wàllu travail yi tamit da ngeen nekk ni nga xam ne tey dangeen nekkul en forme manque de dynamisme nekk na loo xam ne boo leen jugul pas-pas rek du baax ci yéen ñu dem ci avant signe bu mujj bi àll muy euh, verseau yi mhm. mu ne ci seen relation sentimentale da ngeen nekk ni nga xam ne di ngeen am ay secret yu bëri yoo xam ne dina fës ci yéen léegi nag ci biir loolu yéen seen da ngeen noué ay relation yu am solo parce que boo leen ko defee rek di ngeen am li ngeen bëgg sur le plan moral nag temps yi doxul de dafa nekk en benn de dafa wàcc de li ko waral mooy yoon wi ngeen doon jaawale li ngeen doon jéem a def yëpp da amul ba da ngeen dem de mauvaise humeur tey ci wàllu trabaay aussi ngeen nekk ni nga xam ne yéen seen jëm bopp intérêt bi nga xam ne am ngeen ko jëmale ko ci seen wàllu bërëbu liggéeykaay boo leen ci mën na leen si jàppale ba ngeen mën ci am ndam mm-hmm. ñu jàll ci ñu mujj ñi nag ñoom ñooy poisson yi bu dee ay célibataire ngeen fi leen da ngeen bëgg a jël seen vie sentimentale en mais mun na nekk de waaye def leen attention de ndax réalité yi ak li ngay foog ak liy am du nekk benn de mm. moo tax ci biir loolu yéen seen ñëm bopp na ngeen xool fi ngeen teg seen tànk mu ne ci biir loolu bu dee da ngaa siburu woon feebar ba ci soog a génn nii jarul ngay foog ne woon nga di accéléré waa de boo ko defee rek nee na ci vie sentimentale mun ngaa dajee ku la ëpp doole feebar bi day ñëwaat. Mm. loolu xamoo ko. nit ku feebar ñii bay nekk convalescence ñii ñëw. jéema mari ngaa ñi ni ba day ko ëpp doole fu muy mujjee waaw la ma yónnee aussi loolu nag nee na poisson yi daf leen nànk ci loolu ci wàllu feebar tey nee na ci wàllu liggéey également ça va tout se bien affaire yi ñu ngi jàll comme li nga xam ne noonu leen ko yaakaaree àll saa yi mu jëf waaye tàggoo heure bi jot na de